d'ailleurs nag may lancer benn appel boo xam ne xam naa fi laa ndax xam ngeen ne wax naa ko ci waxtaan léegi fan yi dafa am insulte ay insulte ak i xas ak i audio yu ñaaw yu doy waar yu njëkkati teg ko ci mag yi diine mag yi lislaam yi mooy ay xas yoo xam ne yu ñaaw la yu doy waar la yoo xam mi ngi ci réseaux sociaux yi loolu tax ñu waajal benn marche marche bi suba lay doon suba suba ci vendredi bi ñu ngi ko war a defee grande mosquée bu Dakar bu ñu bu Dakar pare fa lañ ko war a def fa lañ ko war foofu lañ ko defee départ foofu ba place de l'Obélisque loolu nag tarixa yëpp ku bokk murit xaaj tijaan laay ñëpp ko bokk ndax ñi xas mag ñi xam xasuñ xamewuñ murit xamewuñ xaadi xamewuñ tijaan ñëpp lañu insulté moo tax convergence taxul ndoonee mag ñi di ko def suba loolu ñu koy jàllale ci yaakaar naa Dakar Buzz wala Dakar Buzz wax dëgg yàlla site internet la boo xam ñëpp ko suivre donc suñ message bi daal ñu koy jàllale muy suba insha allahu rabbi le 23 ci àjjuma bi grande mosquée bu Dakar la ñuy def marche boo xam marche la soosu nag nee sëriñ soosu nag su màgg soosu nee su màgg soosu baax soosu ci baax soosu am na ñu jóg uniquement jamono yi am na ñoo xam jóg nañ uniquement jamono yi jamono yi ne ñooñu dañ fi jóge ne ñooñu dañ fi jóge mari de yamatuñ ci nee yamatuñ yamatuñ ci ñooñu nañ fi jóge ñooñu nañ fi jóge waaye dañoo yëkkati sax nee dañoo yëkkati sax ay kàddu yu ñaaw ay kàddu yu ñaaw yu ñàkk teggin yu ñàkk teggin jëmale ko seen kaw jëmale ko seen kaw loolu yaakaar naa réseaux sociaux yi nee loolu nag média bi réseaux sociaux yi ne réseaux ma média bi rek. réseaux sociaux yi. waaw loolu la ñuy jàng français ko xam te ni. wax réseaux sociaux. média bi. la média bi. ne internet bi rek. maa ngi ca tasaaroo. ma ngi ñu ngi koy tasaare. boo nee média da nga may jaawale da nga may jaxase waa média bi. nee na bu waxee dama koy jaxase ak média bi. internet bi nee internet bi. maa ngi ca ma ngi cay tasaaroo. ñu xas ñu ñu xas. Alhaji Malick Sy. Alhaji Malik Sy. non non lan si yàlla yan si yàlla musal. ne di xas ne Cheikh Ahmadou Bamba yal na ci yàlla musal di xas alaaji Ibrahima Niass yal na ci yàlla musal ne di xas alaaji Omar Fouti Tall ne yal na ci te ñu mel nii te ñu mel nii Mali na ñu a mel noonu Mali nag amoon ñu a mel noonu Niger amoon na amoon nañ lu mel noonu Arabie Saoudite amoon nañ Yaman amoon nañ ko waaye ba ay nit jógee gotte seen worma. gotte seen worma. di leen xas di leen xas. di leen saaga di ma taxaw seetaan. réew ma taxaw seetaan. jullit ña taxaw seetaan. ñooy taxaw seetaan. fenn amatul jàmm. fenn amatul jam ndax nitu yàlla yi. ndax nitu yàlla ne damaa fiir ci ñoom. ne yàlla ba ku leen noonoo. leen noonoo. man yàlla maa la déclaré guerre. man yàlla maa la déclaré guerre. déggal loolu. képp ku neenoo benn nitu yàlla. ne képp koo xam ne noonoo nga benn nitu yàlla. man man yàlla maa la déclaré guerre. ne wali yooyu yëpp réew yooyu nekkoon ne réew yooyu nekkoon warmaanuñ leen warmaanuñ leen di leen xas ak ŋàññ di leen xas ak di leen ŋàññ ba nit ña bàyyi leen ba nit ña bàyyi leen topp leneen topp leneen ne réew yëpp tàkk na loolu lañ bëgg indi Sénégal loolu lañ bëgg indi nag Sénégal fan yi ne fan yi audio yi ku ko dégg audio yi ku ko dégg muy ay xas muy ay xas ak i ŋàññ ak i lekkatoo lekkatoo naanatoo naanatoo te loolu nag te loolu nag ne mi ngi seeral mi depuis 2016 depuis 2016 la commencé woon la commencé woon kuréel gi mooy AIS mooy AIS boole njabootu Alaaji Ibrahima Niass ne boole njabootu Alaaji Ibrahima Niass ma Sidi Hadj Malick bokk ci 2016 ne 2016 lañ arrêté woon état lañ arrêté woon état ndax dañ ko njëkk a ndax dañ ko waxoon dañ ko njëkk def buñ ko njëkkee def mooy ñooñu contre mag ñi. mooy ñooñu contre mag ñi. ubbi groupe whatsapp. ubbi groupe whatsapp. ay compte youtube. ak compte youtube di xas mag ñi. jugoon ñoom. lañ jugoon ñoom. dem ba dem ba dikk. jox leen audio yi. jox leen audio ne kon jox

ana ñu yor sécurité bi ana ñu yor sécurité bi ana ñu war a taxaw taxaw mag ñi ana ñu war a taxaw mag ñi ana ñi nga xamee ne ana ñi nga xam ni gannaaw yàlla bu ñu amee jàmm fee ñu toog ca palais gannaaw yàlla bu ñu amee jàmm fee toog ca palais ministère yi bu ñu amee jàmm ministère yi bu ñu amee jàmm bu ñu amee jàmm armée bi bu ñu amee jàmm population bi amee jàmm population bi bu ñu amee jàmm mag ñu baax ñi kese suñu mag ñu baax ñi rek la ëpp luñ fi soldat ndax ëpp luñ fi ay soldat ëpp luñ fi xam-xam ëpp luñ fi xam-xam ëpp luñ fi ay renseignements généraux ëpp luñ ay renseignements généraux ëpp luñ fi armée ëppluñ fa armée te réew yi ñu ko ëppale yëpp te réew lépp ña ngay tàkk ña ngay tàkk ba mu des Sénégal ba mu des Sénégal kon nag am na ak ceetaan kon nag am na ak ceetaan ba bi ñu waaj a tabaski te bi ñuy waaj a tabaski la ñooñu jugaat la ñooñu jugaat yëkkati kàddu yu ñaaw yëkkati kàddu yu ñaaw jëmale ko sëñ Touba jëmale ko sëñ Touba Alaaji Ibrahima Niass Alaaji Ibrahima Niass sëñ Bukunda Ndiassane Cheikh Makumba Teku euh, Alaaji Malick Alaaji Malick Cheikh te loolu nag mi ngi commencé tas te commencé tas ci ci ci ci ci euh, internet bi. te mën naa indi problème. te mën naa indi problème. ñu waxul ko 2016. ñu waxoon ko ci 2016. bañ na duñ ko def. ñu wax loolu nag moo tax. ne loolu nag moo tax. jullit ñëpp jullit yëpp. dajaloo dajaloo. suba ak jàmm suba ak jàmm. ci àjjuma bi. si àjjuma bi. ci grande bu Dakar. ci grande mosquée de Dakar. buñ jullee ba pare. ne buñ jullee ba pare. ñuy dox doxub ma dox doxub ñaxtu. nee ni dox doxub. ñaxtu doxub jàmm doxub jàmm. jàmm. marche pacifique. nee ma marche boo xam jàmm rek la. kese. kese. pour wan. pour wan ni. Sénégalais yi Sénégal yi wax état bi wax état bi ne ko jàmm ji am jàmm ji nga am sunu mag ñi ñu ko may moo ñu ko may am nañu jug am nañu dul di wooye seen bopp ne di di di woote di woote woo seen bopp ne ñoo ahlu sunna wal jamaa ne ahlu sunna wal jamaa ñoo ñoo ñoo nee na ñoo nee na tarixa yi dañu fi war a nag dajaloo bëgg nañ ne tarixa yi nañ jàngal xale yi te dañ doon jàngal xale yi ak maanaam maanaam ak xaste ak xaste ak ŋaaññi ak ŋaañ bañ koy yëkkati bañ koy yëkkati fas yéene jàkkaarloog adduna bi nee bëgg a jàkkaarloog adduna bi dox dox mars jàmm ak salaam nee dox mars nag jàmm ak salaam bu état bi jël ay matukaay bu état nag jël ay ay matuwaayam balaa balaa bay di yooyu mbuus balaa mbay bay nag yooyu mbuus ndax fépp tàkk na ndax fépp tàkk na ba mu des Sénégal ba mu des Sénégal ñëpp ñu ñee ne ñëpp ñu ñee ñëpp bëgg dëkk Sénégal ñëpp bëgg dëkk Sénégal te feeñ na pétrole feeñ na pétrole feeñ na gaz feeñ na te nag nga xam ne pétrole ak gaz bu mu feeñee te ñoo xam ne bu pétrole ak gaz bu mu feeñee dañoo bëgg a taal réew ma a taal réew ma pour nit ñi nekk ci ay pour nekk nekk nekk ay ñu jël ko ñu jël ko ñoo bañ nag nee na ñoo bañ nag ndax Sénégal ndax Sénégal alaaji Ibrahima Niass dëkk Ibrahima Niass ku al ku am alaaji Ibrahima Niass ne ku am alaaji Ibrahima Niass am Boukounta Ndiassane am nag Bourkoum daal ne mag ñu baax ñi rek ñooñu ku am ne ñooñu ku am rek duñ nangu réew nag réew mi ku ko taal politiciens yi na ak lobby ak lobby ak tubaab taal nañ fu nekk Sénégal taal nañ fu ko ci waas nag mënuñu ko fu fu leen dese nag mooy diine ji jël ñu weddi mag ñi ne jéem a weddi mag ñi jël ñu weddi mag ñi jël ñu weddi mag ñi sëf leen ci sëf leen ci ñu mag ñi ne sëf leen ci mag ñi ñu leen di weddi ñu leen di weddi di leen xas di leen xas di leen ŋaañ di leen ŋaañ désacraliser leen ba kenn du amat ñoom pas-pas. ba kenn dootu fi am. loolu na jot na sëkk. bi ñu ko xamee. ñu jug taxaw pour wax état. pour wax état ñu jël ay matukaayam. ñu jël Sénégal mel ni Mali. nee balaa Sénégal mel ni Mali. wala Nigéria wala Nigéria. loolu nag ñu julee. ñu julee àjjuma rek. ñun dox dox dox doxub jàmm. état bi jël. am na article bu aar Macky mooy aar Macky Sall. moo koy moo koy aar. nee boobu nag dañoo bëgg nee doona bëgg nag ñu jokkoo ak ay député yoo xam ndax boo demee ñu jokkoo ak yoo xam bu ñu demee assemblée député yëpp député ay murid lañ ñii ay murid lañ ñii ay tijaan lañ te kenn bëggul ñu laal sa wasila te ñoom ngir buñ jógee buñ paree assemblée nee na lañ boo xam ne dana am article boo xam ne mhm. dana aar suñu mag ñu mhm. loolu combat boo xam ne ñoo ne loolu combat nañ ne mag ñi nañ jàmm ji ñoo ko teg suñu loxo nañ suñu ji ñoo ko teg suñu loxo jàmm ji ñoo ko war a ko mën a sàmm